dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen a ñu xëyandoo yéen a kaay gi di réew mi jeex xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu diwaanu Amérique ci lakk gu metti gi nga xam ne am na fa ba juróomi doomu réew Sénégal yu bokk gennu njaboot daal di ñàkk seen bakkan yéen gi nee na jibi jol mi nga xamante ni moo sa faatu moom ak njabootama dinaa leen ci wax lu ngeen xamul ndax moo nekk premier vainqueur compétition English Lovers World ci RTS 1 nekkoon na membre club anglais lycée Limamoulaye ay kàddu yu doy waar ay kàddu yu daw yaram jóge ci ñi nga xam ne ñoo ko doon jàngal ak ay xarit itam ma ngi ci yéen kaay gii di réew mi quotidien police bu Amérique daan nay dëggal ne loolee incendie criminel la maanaam nit moo ko daal di def waaye nag ubbi nañu seeb enquête njiitu réew mi di Macky Sall nee na nag loolee lu garaaw la lu doy waar la journal bi délibération mu xëy di ñu xamal lan ñu doomu réewum Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk ca Amérique am nañ lu leen naqari lool ci mbir mi yéen kaay gii di la turbine ak réew mi quotidien xëy ci conférence de presse bi nga xam ne ni ki démb union nationale des syndicats autonomes du Sénégal doon nañu ko amal doon jàppale maanaam liggéeykat yi nekk ci ëttu attakaay yi nee nañu nag maanaam nag gouvernement bu Sénégal bu respecté wul engagement yi nga xam ne maanaam jëloon na ko danañu ko andil ay ñol-ñol ak i jafe-jafe yi nga xam ne moo amoon ci 1992 ñoom union nationale des syndicats autonomes du Sénégal nee nañu état bi maanaam bu yëgluwul bu ko saafarawul mbooleem syndicat mbooleem liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal maanaam nag danañu daal di nekk ci ab grève boo xam ne ay jafe-jafe rek lay andil mi yéen a kaay gii de la témoin xëy di ñu xamal lan ñu grève bu metti bi nga xam ne moom la liggéeykat yi nekk ci ëttu attakaay yi nekkee bëri na ay jafe-jafe yoo xamante ni andil na ko askanu Sénégal ndax bëri nañu soxla tribunal waaye nag ana lan la Macky Sall di xaar ngir nag daal di koy lijjanti te nag mbir mi sax dafa mel ni soow mi dafa am lu siy ñuul gerew bii nga xamante ni maanaam liggéeykat yi nekk ci ëttu attakaay yi ñoo ngi koy gerewa est waa Pastef maanaam nekkuñu si ginnaaw maanaam cadre Pastef yi nga xam ne maanaam ci justice bi la ñuy liggéeyee n ce que di Papa Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké député bokk gis-gis bi moom nag ma ngi woo kilifa diine yi ñu sensibiliser askanu Sénégal ci li nga xam ne mooy coronavirus moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly na kilifa diine yi bokk nañ ci li nga xam ne moo tax woppi coronavirus di law ci réew mi ndax ñoom kilifa diine yi maanaam ñooy organiser li nga xam ne maanaam mooy ay xumbute jëm ci wàllum diine te loolee bokk na ci loo xam ne dafay lawal jàngoro ji kilifa diine yi ak njiitu réew mi di Macky Sall jamono ji war nañoo def ndànk lool ci coronavirus bi Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur tey jii dina jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi wax nag ay mesures yees yoo xamante ni fas yéene nañ koo jël ci coronavirus la ko waral mooy bàyyeeku gi nga xam ne moom la askanu Sénégal bàyyeeku njiitu réew mi di Macky Sall ni ki démb wax na Abdoulaye Diouf Sarr ñu daal di décentraliser li nga xam ne mooy test yi maanaam daal di koy yaatal ci biir réew mi yéen a kaay gi di source a mu xëy di ñu xamal lan ñu en tout cas coronavirus ma ngi gën di law ci àdduna bi conseil présidentiel bi nga xam ne ni ki démb am nañu ko njiitu réew mi di Macky Sall rafetluwul benn yoon ni nga xam ne moom la journaliste yi maanaam di joxe xibaar yi di traité information bi nga xam ne maanaam moo jëm ci woppi coronavirus di tiital askan wi ak yu si aju moom njiitu réew mi nee na état d'urgence ci yenn ci ay gox soo muy tuulee dina ko daal di def yéen a kaay gii di réew mi ko dëjee ñu xëy fekk fa Guy Marius Sagna nee na coronavirus ak lu si man di xew ci réew mi maanaam Macky Sall la ndax waxuñu dëgg askanu Sénégal ci mbir mi te nag wayaa wayaa rek la ñuy doxee yéen gii di lii ko dëjee nee na njiitu réew mi di Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom la àndal di xeex coronavirus benn jéego la ñuy jéego ci kanam daal di jéego ñaari jéego ci ginnaaw ginnaaw te Macky Sall maanaam kenn dafa xamul jamono ji lan la bëgg journal bi de la témoin mu ñu xamal lan ni police ak gendarmerie ñoom takku nañ ba dëgër ngir nag dugg ci terrain bi maanaam jëflante ko ak askan wi nga xam ne ñoo bañ a takk ay masque yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu Alassane Dramane Ouattara nee na candidat la ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ca Côte d'Ivoire fanweeri fan ak benn ci weeru octobre journal bi yokk ci ne Alpha Condé moom tim apartem daan nañu koy tabb ngir mu nekk candidat ci yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci Guinée Conakry yéen yéenekaay gii di Dakar Times mu xëy di ñu xamal naan ñu contrat bi dox diggante Senelec ak Akilee ngir ñu dakkal ko waa Akilee ñoo ngi laaj lu toll ci dix-neuf milliards waa Senelec Libération na Mamadou Biteye mi nga xam ne moo jiite Senelec maanaam dakkal na contrat bi doxoon diggante Senelec ak Akilee maanaam ñeenti fan ci weeru août bi nga xam ne moom la ñu génn xaarul sax dogal bi tukkee ci tribunal yéenekaay gii di La Tribune mu xëy di ñu xamal naan ñu Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass niki démb denc nañ ko ci Kaolack maanaam ci teewaayu mbooloo mu takko takko jooy ya bëri woon na lool waaye nag ñu bari doon ñu ko ñaanal alxamis la boo xam ne Kaolack dina ko yeex a fàtte yéen a kaay gi sunu làmb xëy ci école de lutte Balla Gaye maanaam ci saison bi lu toll si juróom-ñaar ci ay victoire am nañu ko am juróom-ñett ci ay défaite Balla Gaye numéro 2 ma ngi ci ay vacances Elton jamono ji maanaam kenn déggatu ko les deux moom waxatuñu ay waxama Sococim am na juróomi anne balance yéen a kaay gi di estat xëy di ñu xamal laan ñu huitième de finale retour Ligue des champions Juventus de Turin ak Real Madrid mënuñoo ñàkk am victoire lu ko mooy rek ñu daal leen di éliminer